Xadim euh, sëriñ bi maa ngi jël kàddu di ko yëkkati ci turu ak ndigalu suñuy kilifa ci liggéey bi ngir indil la nuyoo bu tedd di la ziar ci turu kilifa gi ñu àndal muy ministre de la santé et de l'action sociale ak délégation bu mag bi mu àndal ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sargal di teg ci sa loxo nuyoo bu sell nuyoo bu sell ak ñaan ak ziyaar nga àggale ñu ko ci ku tedd ki muy xalifatul am sëriñ Mountakha Bachir mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal mbooleem njabootu sëñ Touba ak mbooleem taalibe yi sama kilifa ne ma su ma jëlee kàddu naa ko sant naa la sant bu baax dalal bii nga ko dalal fii tey ci résidence Khadim Rassoul délégation bi mu àndal muy délégation bu mag moom ministre de la santé de l'action sociale docteur Ibrahima Sy jiite ko ànd ci ak le secrétaire général du ministère de la santé de l'action sociale muy sëriñ mbay nga xam ko mu nekkoon fii département bi préfet du département de Mbacké nekk l'actuel secretaire général du ministère de la santé et de l'action sociale mu ànd ci délégation bi ak ki ñuy wax Ousseynou Ngom Ousseynou Ngom mooy daaju ministère de la santé et de l'action sociale moom moo yor lépp luy euh, affaire u administration ak lu demee noonu ci biir ministère bi mu ànd aussi ak ku ñuy wax Abdallah Wade muy directeur bi yor SAMU wàllu paj mu jàmp mi moom lañ yëkkati teg ko ci loxoom muy docteur Abdallah Wade mu ànd aussi ak ndim bu jéem mu toogal fi directeur des infrastructures des équipements et de la maintenance nga xam moom moo yor lépp lu jëm ci tabax hôpital ak toppatoo hôpitaux yi ba mu mën a euh, taxaw taxawaay bi ñuy xaar ci ñoom mu ànd ak ku ñuy wax docteur Siga Diop Deme muy conseiller technique numéro 4 nekk aussi koo xam ne dafa nekk ci wetu ministre bi di ko xelal ci wàll yu bëree bëri mu ànd ak conseiller technique Abdoulaye Ndiaye nga xam moo yor lépp luy wàllu social ci biir ministère bi yo ànd ak ku ñuy wax Ismaïla won muy chef de cabinet wu ministre bi ànd aussi ak ku ñuy wax Soxna Ab muy conseiller en communication bu ministre bi mu ànd ak ku ñuy wax Abdoulaye Thiongan muy chef du protocole du ministre ñu ñëw fii ci région bi fekk fi monsieur le gouverneur de la région muy gouverneur bu Diourbel ànd ak préfet de Mbacké ak le sous-préfet de Touba ànd aussi ak chef de service yi nekk fii ci wàllu santé muy directeur d'hôpitaux yi ak médecin chef de district yi ci médecin chef de district yi docteur Ndeye Maguette Diop njaay mu ngi fii docteur ay dara bu Mbàkke mu ngi fii docteur Dieynaba Kane bu Bambey mu ngi fii docteur Moussa Ndiaye médecin chef de district bu Diourbel mu ngi fi ñu ñëw fekk fi ànd aussi ak le directeur de l'action sociale ki nga xam ne lépp luy social ci région bi te war a jaar ci ministère la santé moom moo ko yor muy mbay jonn moo yor lépp luy sociale ànd ci ak service départementalu action sociale bu Mbàkke ak CPRS bu Touba ak képp koo xam ne rek da ngay liggéey ci wàllu sociale ministre bi ñëwoon fekk fi ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi muy acteur communautaire yi fekk fi aussi personnel de santé yi fekk fi képp koo xam ne rek da ngay jàpp ci liggéey yi muy bàjjanu gox bi bàjjanu gox yi soxna Fatma mu ngi fi Fatma Diop présidente bàjjanu gox soxna Ndioba Mbacke mu ngi fi ànd ak kilifa yi nga xam ne dañu nekk ci biir euh, Touba di leen jàppale ci wàllu santé ñu ànd ak Mor mu taxawaloon maire bi waaye maire bi ñëwal boppam fekke jotaay bi li ñu ci wax yëpp mu fekke ko euh, jotaay bii nag li tax ministre bi jóg dafa fekk dañu dëggmal màggal bi mu am mébét yu bëri yoo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram dañ ko mébét ngir mën a taxawu askan yi mébét yooyu ministre bi da ko tàmbali di saytu ca ba ñu defee CLD bi ba ni ñu ñëwee ministère de l'intérieur waxtaan fa lépp mu tënk ko fas yéene ñëwoon tey ngir saytu loolu fuñ ci toll ak taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ngir taxawu màggal gi fu mu toll bi mu ñëwee présenté nañ dispositif bi maanaam bérébu li bérébu fajukaay yi nga xam ne moom la ñuy taxawoo ñi nga xam ne ñooy ñëw di màggal si béréb yooyu toll na ci cent quatre-vingt-six points maanaam téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn point yoo xam ne dañ koy def ci biir dëkk bi euh, bérébu fajukaay yooyu bokk na ci hôpital Cheikhul Khadim hôpital Matlaboul ni ak hôpital Ndaamaatu ministre bi mu jógee tey dem na hôpital Ndaamaatu saytu fu liggéey bi toll ngir xool taxawaay yi nga xam ne hôpital bi war na ko taxawu ngir taxawu nit ñi fan lañ ci toll bi mu fa jógee dem na xool service d'hygiène service d'hygiène liggéey bi muy def ci dëkk bi ci wàllu waajal màggal gi di pompe kër yi ak di pomper bërëb yi nit ñi di daje mu laaj leen fu ñu ci toll ak lan mooy seen jafe-jafe ngir mën ci taxaw bi mu fa jógee dem na hôpital jéemul centre de santé jéemul dem na xool bloc opératoire bi ñu fay tabax ak xool itam seen taxawaay ci màggal gi nan la ciy mën a gën a taxawee ngir ñu mën a taxaw ujaaj yi ngay ñëw ci màggal gi bi ñu fa jógee nag dem nañ Cheikhul Khadim saytu bérébu fajukaay yooyu ñu doon wax ne tijji te tey ñu mën a wax yooyu yëpp tijjeeku na ministre bi dem na gisal boppam kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax xam naa wax ji du gudd ndax dañuy jox ministre bi ci ay kàddu yu yu muy tënk jébbal la xalaatam ci li nga xam ne moom la gis ginnaaw bi mu nemmee ko bërëbu fajukaay yi ñu ngi euh, daaneel suñu kàddu di la sant di sant bu baax ci say taxawaay ak jàppale bi nga xam ne yaa ngi koy jàppale bérébu fajukaay yi ak fajkat yi ak taxawaay bi nga xam ne yaa ngi ko am ci wàllu sante muy loo xam ne ñun ñii ci yëngu te ñu def ñu ci jëwriñ xam nañ bu baax taxawaay yi ngi ci taxaw taxawaay yu mucc ayib la di euh, la jox suñu ziar ak suñu cant ngir nga àggale ko sëñ Muntaxa Bachir ci ay taxawaayam ci réew mi ak ci àddina moom taxawaayam jéggi na dëkk bi dem na ba ci réew mi yëpp lu xew mu taxaw ci te lu mu taxaw taxawaay boobu maanaam dañ ko ci sant sant boo xam ne amul am na fu muy tàmbalee mais amul ab ñu ngi sant bu baax ci turu ministre de la santé ak délégation bi bii mu àndal di di sant aussi service d'hygiène ci liggéey bi nga xam ne tàmbali na ko fi ci juróom ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci dëkk bi fas yéene koo tënk ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci ci weer wi ñu nekk kon ñu ngi sant bu baax tey jéggalu ci kàddu yi. waaw kon ñu ngi sant bu baax ñu ngi may signaler monsieur le maire moo war jël kàddu kon jërëjëf ñu ngi jéggalu bu baax jërëjëf. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal ci turu sëriñ di la dalal ci turu conseil municipal bi ak l'ensemble des personnels de santé bi nga àndal muy ñi nga xam ne da ànd ak ñoom jóge Ndakaaru muy ñi nga xam ne personnel bi nga xam ne fi nga leen fekk te docteur Dieng mii nga xam ne moo jiite région bi jiite ko ànd ko ak euh, directeur bu Ndaamaatu directrice bi ànd ko ak médecin district bi Ndeye Maguette waaye mu ànd ak directeur bu Matlaboul Fawzeyni ak directeur Cheikh Amadou Khadim docteur Sourang ak l'ensemble de personnel u santé bi di la sant bu baax a baax ci ñëw gi nga ñëw ngir ñu waajal bis bi bi nga ñëwee it nga fekk fi gouverneur de la région de Diourbel préfet de Mbacké sous-préfet de Ndam ak président conseil départemental bu Mbacké ak la maire de Touba ak mboolem acteurs yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu santé muy bàjjali gox yi ak waa action sociale ak waa ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci secteur bi monsieur le ministre di la dalal di la xamal ne rek ci waajtaayu màggal gi comme ni ko euh, docteur waxe ci dëkk bi euh, li wolof di wax ndimbal na ci fekk loxol boroom ñu ngi ci doon góor góorlu seen kam kàttan ndax ci wàllu waajtaayu màggal gi commune Touba tabax na juróomi poste de santé boo xam ne benn bu nekk mi ngi ko mi ngi ko euh, réaliser cent quatorze millions jënd équipement bi def ci à vingt deux millions muy cent trente sept ci juróomi pos yi ba ñu daj di sant bu baax benn association Touba ca kanam seen ñoom it tabax nañ deux mille vingt deux deux mille trois deux mille vingt quatre ñaari poste benn bi commune bi occupé na leen ko ci une valeur de vingt deux millions équipement bi nga xam ne moo ci nekk muy ndaamaatu. loolu fekk jàppale nañ ko ci santé ci état bi ci wàllu waajtaay wi nga xam ne ci euh, lu lu jàmp la comme ni ko euh, mboolem directeur yi ak médecin district bi defee plaidoyer ci yitte yi nga xam ne ñu ngi koy am ci district bi aussi commune bi jàppe na ci valeur de 34 millions de médicaments yoo xam ne def nañ engagement bi yóbbu nañ ko dina ci jot normalement ci semaine bi ngir mu dem mën koo jàppale poste yi ngir mu mën a accueillir malade yi waaye jox nañ aussi quinze mille litres gasoil une valeur de dix millions yoo xam ne danañ ko ko jox aussi mu man koo jàppale ci ambulance yi car carburant bi nga xam ne fonctionnement la ci santé ngir mu mën a évacuer loolu ci wàllu service de aussi commune bi jàpp na ci ci ni ko comité de organisation bi tënkee deux cent litres pericale mooy produit boobu nga xam ne mooy la ñuy fegoo muy pomp kër yi à deux cent litres une de trois millions cinq cent mille ak trois cent litres gasoil yi nga xam ne moom la ñuy pomper loolu loolu commune bi jàppalee na ko euh, mas de santé ci ci ngir ñu waajal bis bi ngir liggéey bi mën a tegu ci yoon loolu nag boo amee nga ñëw wër mboolem hôpitaux yi ak district yi donc district bu Mbàkke teew district bu tuubaa teew directeur hôpitaux yi teew personnel santé bi teew fenn fu ci nekk nga teg fa sa tànk xool la fa nekk ñu wax la li fi xew wax la li nga xam ne mooy doléance bi ñuy soxla ah boo ñëwee da li ñu mën mooy leeral ko sëriñ bi di xamal sëriñ bi ne ko bi nga ñëwee li mat a gis yëpp gis nga ko waaye li mat a wax lépp wax nañ la ko bàyyi nga ci xel aussi dégg nga ko ni ni ni ko waxee ñuy am yaakaar ci ne bu ñu ci yaakaar jooju ñu am ci yow président de la république doy loola premier ministre doy loola ñu yëkkati la jox la département bi nga xam ne àddina bi kuy dund ci Sénégal di si suñu Sénégal yëpp ñoo am ci yow a yaakaar kenn ku ci ne am nga ak moom contact direct ndax war gu yaram mooy lépp te ku xëy ci àddina ci loolu ngay dox lu la mayeeg wér ak nooy def ba wér donc loolu yaakaar gi am ci yow yàlla na la yàlla may kàttan ak ak wér ak am xel ba yaakaar gi réew mi am ci yow ak li ñu la tënk nga man ko matale jële ko fi nga ko jëlee nga yóbbu ko fu kawe njort ci réew mi sëriñ bi daal loolu laa ne woon danaa ko leeral sëriñ bi mu xam ne ñëw nga fekk nga fi taalibe yi ñëw nga ci dëkk bi mboolem liñ la war a woon wan nañ la ko liñ la war a wax wax nañ la ko donc ñu bàyyee kàddu gi sëriñ bi ñu bàyyi la kàddu gi nag nga àggale ak sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bisimilah rahmaani rahim euh, salaamaaleykum mbooloo mi Euh, ngeen may ma ma jottali nuyoo chef de l'État son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak euh, premier ministre euh, monsieur Ousmane Sonko sant suñu sëriñ le xalif général des Mourides sëriñ Mountaga Mbacké yàlla na fi yàlla na wér yàgg fi sant tamit porte parole sëriñ Bass Abdou Khadre sant borom Touba bu baax a baax su ngeen gisee nu ñu duggee fii dinañ xam ni teewaay bi ak accueil bi ndigal la te xam naa ni fi Touba nit ñi si si ndigal lañuy wey te ci sant comi boo xam ni moom moo taxaw pour ñu def fi dispositif sanitaire boo xam ni moom la ñu war a waajal waajal pour wàccaay màggal Touba parce xam na ni mbooloom bu takku Euh, dina fi ñëw liggéey nañ si nag liggéey bu bu mucc ayib présenté na ma euh, dispositif bi te gis naa ni lu ñu war a jël yëpp si matukaay jël nañ ko ba mu ba mu mat sëkk lu ñu ñaan yàlla rek mooy màggal bi ñëw si jàmm fekk ñu si jàmm ñu lu ñu war a jëfandikoo yëpp ñu jëfandikoo si jàmm yàlla may ñu màggal boo xam ni taw féex lay nekk si ñun ñëpp. di sant tamit autorité administrative yu fi teew gouverneur gis nañ taxawaayam depuis buñu ñu commencé di waajal màggal bi guddi ak bëccëg moo ak équipe am yëpp préfet sous-préfet sant tamit délégation ministère de la santé ñu fi ñu fi teewu ñoom tamit depuis bu ñu commencé di wax waajal màggal bi taxaw nañ si bu baax a baax te lu ñu woon tey si dispositif bi wane na lu ñu waroon def yëpp euh, euh, def nañ ko di sant directeur hôpitaux yu fi nekk gis naa ni seen taxawaay bu baax a baax médecin district yu fi nekk bu nekk Mbacké bu nekk bambe bu nekk Diourbel ñoom ñëpp ñu ngi si taxaw bu bu baax a baax service d'hygiène woon nañ ma lu mu nekk di def te xam naa ni liggéey bu baax a baax la ñuy sumb fii nii si Touba pour waajal euh, màggal ki mais di gën tamit sant président euh, premier ministre ak gouvernement bi parce que année bi dañu waxoon ni comme xawoon nañu am tuuti jafe-jafe si côté inondation te dañuy ragal ni xëy na jafe-jafe si wàllum wàllum euh, jàngoor yi wàllu wér yaram mun na mun na am dañoo yokk ambulance bu ñu doon joxe année bi parce que am nañ caisse d'avance bu ñu doon joxe wante année bi dañoo jël huit cent millions ne nañ ko jox opito ñetti opito Touba pour mun leen gën euh, jàppale pour ñu mën a gën a mën a faj fagaru si màggal Touba bi nga xam ni duñu si am vraiment benn benn benn gàllankoor te xam yaakaar naa ni euh, koppar buñ buñ bu ñu jëbalal hôpitaux yi. dañ koy jëfandikoo bu baax a baax ba mu nekk njëriñ askan bi nekk tamit njëriñ dañoo ñu ñëw màggal Touba mais mu nekk tamit njëriñ su màggal Touba jàllee ba pare parce que hôpitaux yooyu tamit dañu war continuer di di fonctionner di joxe service euh, service boo xam ni moom la population bi di xaar damay sant conseil municipal bu Touba sant aussi Touba ci kanam ak mboolem ñu fi nekk ci ay association ñoo xam ni ñu ngi jàpp ci dëkk bi jafe-jafe bu fi am ñu ngi ciy jàpp di ko saafar te xam naa ni euh, euh, su fekkee ni amuñ woon benn taxawaay du mu wax système de santé bii du dem mais dina am loo xam ni dina dina lëj tuuti wante vraiment man xam naa si biir Touba ñoom ñu ngi ñëw di mu wax ci ministère bi falee lu ñu nekk di def fii nii. si wér si mbirum wér-gu-yaram xam naa ni dañ ko yéene Touba yéene ko waa Touba yéene ko waa Sénégal yëpp te maa ngi leen di gën a ñaax ñu gën si taxaw parce que santé lu mu laaj pour ñu ah, pour suñ objectif ñu mën a ko jot financement bu bëree bëri la laaj état bi kese du ko mën a def il faut que population yi bon volonté yi ñu mën si dugal seen loxo partenaire au développement yi dina ci dugal seen loxo parce que tey Sénégal soo jëlee du santé rek moo am boo xam ni soxla nañ ci financement mbay baa ngi fi éducation baa ngi fi jàngub alxuraan baa ngi fi euh, pêche baa ngi fi donc secteur boo jot soxla nañ xaalis donc dañuy xool ku nekk ñaata lañ la war a jox pour nga mën a dox mais santé soo xayma lu muy soxla pour dox duñ état bi kese mënu ko joxe te xam naa ni bon volonté yi ñu ngi koy joxe damay profité fii si sa kanam di leen di leen di leen remercier te di ñaan yàlla ñu gën a yokk seen loxo yàlla may leen wérgu yaram may leen gudd fan may leen kattan pour ñuy gën di taxaw suñu système de santé Sénégal mais ngeen def ci ñaan bu bu baax a baax. am na tamit. Euh, Euh, ndimbal boo xam ni jógee na si si ministère de la santé xam naa ni dage bi moom après dina ko dina ko jox seen seen service yi mooy lu denrée alimentaire ak euh, yeneen produits boo xam ni pour pour affaire set xam ni peut-être dina leen mën a jàppale si si si màggal bi pour mooy mooy tënk xam naa ni jot bi moom amul te dama waroon sax baalu pour temps bu ñu bu ñu la toogloo fii te xam naa ni danga amoon yeneen soxla ak yeneen itte yu ngoon ndox dama bugg rek nga ñaan ñaanal ñu ñaanal Sénégal ñaanal gouvernement bi ñaanal ñu fas yéene ñëw si màggal tubaab yi ñu ñëw si jàmm ñu def màggal tubaab bi ci jàmm ñu ñibbi si jàmm fekk seen famille yëpp jàmm fekk waa Sénégal yëpp ci jàmm jërëjëf. wasalaam wallahi taala wa barakatuhu ministre de la santé Ibrahima si yi lay dellu am nuyu bu baax ak mboolem délégation bi nga àndal bépp tàmbalee ci gouverneur de la région de Diourbel ak préfet bu Mbacké ak mboolem ñi ngi àndal ñëpp rawatina secrétaire général bi nga xam ne at yii njëkk a tàmbali organisé màggal Tuubaa gi 2008 2009 boobu moo fi nekkoon kon xam na liggéey bu baax bàyyiwuma kenn dégg nañ kàddu yu baax a baax rafetlu nañ ko bu baax ndax yëg nañ ne na ma ko waxee woon démb rek def ngeen ci yitte def ci taxawaay rawatina li jëm ci wàllu wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram moom. moo war a jiitu lépp ndax li wolof fi di wax naan soxla bu dee ñaar boo wér dafa ne kon wér gu moom mooy jiitu lépp day loo xam ne ku ko yàlla defal bari nga ko yëg day fekk nga ñàkk ko yàlla ñu ci gi xam nga ne ay millions nit fi daje kon nag bu yàlla defee li ma daa wax rek la sëñ bi daa wax naan ku ne la jàkk bu ko ne gees moom ndax bi ngeen fi toogee yàggagut waaye yéene ji ak yitte ji gis nañ ko te njabootu Sëriñ Tuubaa moom loolu rek la ñuy ànd ak di teraanga ak ug yëkk ndax lu mu doon rek Sëriñ Tuubaa defal leen ko ba noppi waaye nit nag bu nekkee ci lii ko gën a ñor di léppam nga wane ci sa yitte ak sa taxawaay loolu dañ koy rafetlu bu baax kon ñu ngi lay yóbbanteem ñooy ci sa kilifa yi la fi yabal. di lay eh, nuyu yow itam di leen sant leen sant bu baax di leen gërëm ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha nag ndax yàlla def na tey jii moo leen waroon a waaye yàlla def mu bokk ci bis yi nga xam du ko ubbi da koy def xelwatu mu jox ma ndigal mu amoon yéene lool jàkkaarloo yow ndax xam naa ñàkkut say ndaw wi daa dox sa digg moom ba tax amoon na yéene lool gis la kon mi ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm. sëñ Abdou Lahad Ka leeral na ma lépp ci taxawaay yi nga xam ne def ngeen ko ci dëkk bi muy taxawaayu kawe kon loolu moom dañ leen ci sant di leen ci gërëm di nuyu euh, docteur Dieng mi nga àndal ak docteur Sourang ci taxawaayam ak yitteem ci jàmbaaram ci liggéey bi di nuyu directeur hôpital Matlaboul Fawzayni ak day màgg Dieng di nuyu directeur hôpital Ndamatou bàyyiwuma kenn daal boo limee dangay ngay juum. waaye li ci am solo daal mooy yitte ji nga xam ne waa commission bi yor wàllu santé ci euh, comité organisation bi at yëpp ñu ngi ko daa wax ndax daanaka mooy li jëm ci wàllu kër docteur yi mooy garab yeeg ndax xam ngeen ne nit ñi bu ci waxtu màggal bi ay téeméeri euh, poste post lañ ci def ngir nit ñi mën cee fajoo mottoo ñaar téeméeri million kon bu ngeen ko yóbbu ba huit cent millions loolu kon yëkkati ngeen ko bu baax kon day mel ne bañuy ba ñoom ñuy sàkku ñu yokk ko sax dañoo waxoon ne màggal gi dox na fukki at nangam te daanaka li mu yokk bëriwut te nit ñi ni ñu yokk ëpp na kon bu ngeen xaymaa leen seen bopp ba jiituñu ci loolu ak cant ak gërëm képp lañ leen ci amal di leen bu baax yàlla dimbali leen ba noppi indi fi wér gu ci réew mi. ndax li ngeen wax màggal gi dafa tombeek nawet te nawet ku ne xam na day àndaale ci jàngoro yoo xam ne bu dara xewtoon tam day am bu ànd ak mbooloo mi dajaloo te am na ci loo xam ne li ci ëpp ci ndox mi ak weñ ci lay jaar wér di yu bare bari yooyu yëpp ci gàttandu gi la bokk kon nag ñi ñaan ñu àgg ca jam te yàlla suñu borom bi nga xam ne mooy saafara ndax mooy teg mooy technique mooy technique jàngoro wala moo koy saafara yàlla ñu dimbale ba màggat gi ñu génn ci jàmm te kenn bañ a wér di ndax màggat gi moom nañ ko waxee woon 2022 rek suñ suñ bakkan jëraluñu ñàkk jëfe ndigalu suñ kon nag yàlla yàlla dimbale ba fekk ñu nekk ci jàmm ndax moom bu leneen bu bu ak di du ci yàq dara kon nag loolu moom lañuy ñaan yàlla dimbali ñu ba màggat gi ñu àgg ca jàmm te dara bañ a xew lu jàmm bu jàllee itam dara bañ a amaat loolu jàmm wala rawat na ci waat wér-gu-yaram kon ñu ngi leen di beesal ak cant ci tuuru sëriñ bi leen ñaanu bu baax yàlla kàttandal leen ndax yaakaar ji yaatu na yaakaar ji nit ñi am ci yéen yaatu na te lépp yaakaar rek a tax kon yàlla na suñ borom dimbale ba yaakaar ji ñu am ci yéen yàlla bañ ko tas ndax loolu mooy doon njëriñu nit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu ci instruction euh, chef de l'État euh, digal chef de l'État ak premier ministre donc dama ñëwoon tey ànd ak euh, délégation ministère de la santé mais ak aussi taxawaay autorité administrative bu région de de Diourbel gouverneur préfet sous-préfet mais aussi ak directeur régional de la santé docteur Dieng ak mbooleem ñu muy liggéeyandoo fii nii si si si Diourbel pour ñu xool lan lañ taxawal fii si euh, mbirum màggal Touba bi pour mun ko jeg mun ko préparer bu baax a baax pour euh, su fekkee màggal bi euh, jegsi na ñu mun a jël loo xam ne yëpp dafa nar a gàllankoor si mbirum wérgu yaram te gis naa ni motuwaay yi moom jël nañ ko macha allah te maa ngi profité si occasion bi di sant état bi lu muy def mais di sant tamit famille religieuse yi fii ak conseil municipal bi ak. yeneen association comme Touba si kanam parce que man gis naa ni su mbirum wér yaram dañ si taxaw bu baax a baax gis naa ni ñuy tabax ay poste de santé ñuy tabax ay centre de santé di def ay yeneen yoo xam ni day ñëw jàppale état bi si mbirum wérgu gu yaram parce que suñu bàyyi woon état bi kese du mu wax ni du dem mais day day dina xaw jafe mais comme gis nañ léegi citoyen spontanément dañuy jóg organiser wu ñëw wuti xaalis di ko dugal si santé bi dañ leen koy sant te di leen si gërëm di leen wax ni dañ ci gën a jublu bu bu bu baax a baax donc dispositif bi man nu ma koy gisee jël nañ motuwaay yëpp wante du jël nañ motuwaay yëpp mooy que yëpp réglé na euh, jour màggal Tuuba bi du am du am couac parce que xamuñu léeg-léeg mun na am taw boo xam ni suñu structure santé yi duñ fonctionner nu ñu naroon fonctionner mun nañ am aussi comportement population yi accident yi bëri ba besoin bi bëri structure santé yi ñu déborder loolu day yàq dispositif bi mais mun nañ tamit gis ni su fekkee population bi amul information ci dispositif bi nuñ koy utiliser du du du baax donc gàllankoor yooyu noonu dañ ko war a aussi jël en charge bu baax a baax donc profité tamit di rafetulu liggéey boo xam ne ñu ngi koy def fii nii ci hôpitaux yi gis naan fii ñu ngi ci Matlaboul Fawzaini boo xam ni dafa am benn benn infrastructure bu bees bloc bu bees ak standard yoo xam ni yu mucc ayib te yaakaar naa ni fii ku fi ñëw hospitalisé psychologiquement sax soo duggee ñu duggal la fii xëy na di nga damay wax ni sax di nga wér parce que léeg-léeg euh, loolu tamit dafa bokk environnement de lu ñuy wax environnement de soins dafa bokk si prise en charge bi parce que nit ki suy ñëw il faut mu wóolu structure bu muy dugg boo xam ne day am assurance de xelam day dal mais su fekkee ñëw na si ci structure boo xam ne peut-être xelam dalu xëy na loolu mën na ko indil gàllankoor te tamit di rafet lu liggéey boo xam ne def nañ ko fale si Khadim Rasoul gis naa ni foofu tamit am na équipement yu yu moderne xam ni tey mun na kam jël en charge yenn gàllankoor si wér yaram fii nii si si si biir Touba te rafetlu vraiment effort yooyu yëpp moo xam ni gouvernement bi ak état bi def nañ ko si jàppale tamit population bi bu baax a lan mooy bon xam nga euh, loolu mun nañ ko comprendre parce que xëy na année yu passé yi tamit euh, peut-être amoon nañ hôpital amoon na ñaar amoon na ñaari euh, hôpitaux yu fi nekkoon mais léegi gis nañ ni hôpitaux yi dem nañ ba ñett yoo xam ni dañuy dañuy fonctionner te si année yu passé yi nit ñu suñ defoon évaluation dañuy gis ni que xaalis bu ñu doon jégleel hôpitaux yi par rapport ak demande population bi dafa doon xaw a néew daanaka dinañ ko jël en charge mais du ñu mën satisfaire besoin yëpp mais année bi président ak premier ministre ak euh, ministre des finances dañoo wax ni nañ si anticiper ñu jël ko bu baax a baax après jël huit cent millions séddale ko ñett hôpitaux yi nga xam ni ñoom si Magal Touba bi dina mun jël en charge besoin yi mais après Magal Touba yi dinañ xool yan investissement la ñu mun a def si xaalis boobu leen jaglal boo xam day compléter besoin si service yi pour que lépp mun mun a mot te su ñu defee lu mel noonu année bi bi si bu si toppaat ak bu si toppaat rek daanak duñ soxlati di di jëlaat xaalis bu toll noonu di si def si si hôpitaux yi parce que lu ñu soxla yëpp day fekk ñoom motal nañ ko si yi bu baax a baax. gis nañ ne fi ñu njëkk jaar muy hôpital Ndamatou monsieur le ministre am na benn càkkutéef bu ñu dafa dégtal ci service euh, d'urgence bi na benn produit boo def yenn analyse faral di màgg surtout jamono yi màggal te waa ji dégg naa ko sànq mu ne. magalu daaw rek euh, jot nañ euh, recevoir ci ay patients lu tool junni ak juróom-benni téeméer loolee su amul ci magal bi maa doon ay gàllankoor. loolu euh, pharmacie nationale d'approvisionnement ñoom dinañ si gëstu parce que ñu ngi woon foofu wax nañ leen ko ñoom xam nañ produit boobu donc dinañ jël jël seen motukaay. parce que joxe nañ instruction que lu luy jëm si magal tubaab yi ak lépp loo xam ne dafa touché secteur de la santé ku nekk ak ses nga jël mot bu motuwaay bu bu bi. su fekkee ni tamit nit ki day am day dañu am problème pour jët mot disponible motukaay bi dinañ ñu saisir ñun ñu xool nan lañ koy mën a saafara avant avant magal tubaab pour ñu mën a am produit boobu.